gannaaw ñaar fukki at ak juróom yu mu def ci bopp comité des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées Ndeye Daga Gueye daal di ñëw dressé ab bilan bu satisfaisant bi nga xamante ne moom la def ci bopp kuréel boobule. def assemblée générale maanaam salaat suñu kuréel euh, te nag ma annoncé ci ne war dëgg yàlla damay retiré wu damay noppaleku ji bu ma ci defee lu ëpp ñaar fukki at ak juróom. li may wax rek mooy li ñu fi li comité bi liggéey bari na euh, depuis mu juddu euh, liggéey nañu ak ministère yu bari ñu am fi nag un important projet muy le projet VLF e nga xam ne moom moo ñu leeralal yoon wi parce bi mu ñëwee la jàppale ñu. am ay instruments de bonne gouvernance tey jii amul benn jaaxle wala sikki sàkk bi ñu war a amal jëmale ko ci avenir kuréel jigéen yu handicapé yooyu le ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi war a nekk dina doon ñoo xamante ne ñu responsable lañu. Euh, te jàpp ne formé nañ ci ñoo xam ne mën nañu yor mbir mi ëllëg euh, renforcer nañ ci xale yi euh, ba ñu am aussi un engagement donc ñu loolu moo tax tey bés bi am solo trop si man. waaye am na ay defi yu bëri yi nga xamante ne ñooy xaar présidente bu yees bi nga xamante ne moom la ñu war a tabb ngir jiite comité des femmes bu association personnes handicapées yi. nouvelle équipe bi moom li leen di ñaan mooy li nga xam ne moom lañ fi bàyyi surtout nag renforcer lu concerné vraiment les statuts euh, les règlements euh, concernant le comité loolu ñu dëgëral ko bu baax. gannaaw bañ doon amal assemblée générale li ñu bëggoon rekk moo di tabb njiit bu yees bi nga xamante ne moom moo war a jiite commité des femmes de la fédération des associations des personnes handicapées ci loole nag lañu daal di tàbb ki nga xamante ne moom mooy Khady Ba mi wuutu Ndeye Daga Gueye